na leer. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw man euh, Mademba Camara laa tudd nañ may wooyee tamit aussi le cheminot de xalifa Sall. waa marché bi li ma fi yëgati mooy euh, tey nit ñi dañu war a am taxawaay. ndax euh, bu ñu bëggee toog rek ñu def ñu nooteel bëgg ñoo takk nit ñi waru ko waruñu ko mën a nangu ndax au niveau du palais c'est pas la première fois que ay nit dem di fa marche ba yegg ci gris yi et puis que ñooñu kenn tëju leen ñi ñu ci mës la encore pourquoi ñu bëgg a téye Guy Marius Sagna bëgg a téye Babacar Diop en ko te loolu kenn du ko nangu il faut que Macky Sall xam ni que peuple bi du peuple bu ñuy noot le Sénégal sera toujours debout pour le combats nobles et justes. courant bi euh, jafe-jafe ñëpp la ci am ku ci ne gis nga sa facture que mois bi bi mu ñëwee facture bi yokk na lool donc kooku tam il faut que ñu jël. comme ni ko gaañ da waxee dañuy bañ dañuy bañ dañuy bañ parce que dañu on attendait que facture yi dafa war a wàcc mais gis nañ ni wàccul ndox mi tam Suez donc les travailleurs li ñuy demandé c'est noble donc état bi war na mën a dellu si xelam jox leen 10 pour cent yi ñuy demandé parce que c'est un partage donc dañu war a def part des travailleurs dafay am tout toute forme de privatisation libérer Guy Marie Sagna. One love à tout le monde. Merci beaucoup.